nasru minallaahi la ci yoonu gaaraas daara metti lool nag parce que guddi la taw bi ñëw dañoo dañoo ba mu yàgg muy taw rek di taw ba mu yàgg ñu ñu yër man fekk na ñun ñëpp ñu tëju biñ tëjoo léegi ma daal di yërnu ci kori sara yi fekk sama doom ji soog a ñëw ñuy màggal si indi otoom gaare ko ci biir kër gi fi ñu toogee ba mu yàgg rek muy taw ma ne ah, ndox mi da bari na daal di yërnu ci kori sara yi gis bidon yi nekk ci ëtt bi ak bagage yëpp di fee ma daal di jóg foofu laa ubbee nag ma ubbee daal di fëgg sama doom fëgg ñi ci des ni leen jóg leen kër gaa ngi fees. xanaa xanaa rek ñu dimbali ñu ndaxte fi mu nekk nii sunu lépp a ngi ci biir sunuy bagage sunuy yére sunu dund sunu lépp a ngi ci biir wax dëgg yàlla metti na trop. sunu njaboot tamit ñu ngi moom guddi keroog metti na parce que ndox mi ànd ay melentaan ànd naag lu nekk ci ci lañ fanaan ba asamaan set soxla nañ ko torop torop soxla nañ ko moom ndax wax dëgg yàlla moom sonn nañu torop ñu ngi nii yor sunu njaboot tasaaroo nañ fu nekk nit a nga fa foo mën a dugal nit rek dugal nga ko fa ñu ngi nekk ba jaanatu ñu yor sunuy sunuy yitte yoo xam ne war nañ koo lijjanti ah te mënuñ cee lijjanti dara kër gaa ngi nii gis ngeen ko ni mu demee moom fees na dell waaw xanaa ñu dimbali ñu rek jàppale ñu ci jàppale ñu njaboot gi ci wàllu pompe yeeg yooyu ak wàllu wér gi yaram gi ndax fi mu ne wax dëgg yàlla sonn nañ sunu lépp a ngi ci biir du dund du dara loo xamante ni luñu ñu génneel lépp ngi ci biir rek fari loolaa tudd maan. asalaamaaleykum bon ñi ngi nuyoo di eh, wax rek nuyoo bi noo ngi koy eh, jagleel sëriñ Cheikh Mountakha Mbacké Bachir mi nga xam ni mooy xalifa murid yi eh, di ko ko jox di ko ñaanal yàlla sunu borom fan wu gudd ak wér gu yaram man capitaine Falilou Sarr laa tudd maa nekk région Diourbel. Euh, maa ngi fii Touba tey euh, dendandoo ak euh, jëwriñ ji nga xam ne moo nekk Touba moo yor brigade spéciale Touba di Alassane Salam Keita donc ci mbir moo xam ni doy lu ñor sëriñ bi ñor askan wi muy xam ngeen ni fan yi daf fi sotti ndox mu baree baree bari ci ci ci ci nawet bi taw bu bëree bëree bëri ñaari taw yu tegaloo yoo xam ni mën naa wax ni ay téeméeri téeméeri kër ñu ngi ci biir ndox bi fii ci Touba ba tax na service d'hygiène ni mu ko daan defee rek fu loolu amee dañuy ñëw dañuy ñëw wàllu si borom kër yi eh, ci lu aju ci pompe kër yi eh, ànd ko sapeur yi ba sapeur yi wàññi ndox mi waaye nu it bu ñu wàññee ba pare nu pomp ko pomp ko ci wàllu luy rey doomu jàngoro yi nga xam ne bët du ci dal muy microbe yi waaye tamit pomp ko ci wàññi lépp loo xam ni luy naaw la muy rab yi naaw eh, di weñ yi ak mbóot yi ak ak surtout yooyu mu wàññeeku ci biir kër yi loolu bokk na ci donc opération bi nga xam ni moom lañ tuddee semaine Euh, assistance maanaam ay bis gu ñu jagleel jàppale ñi ci mbënn mi euh, te ñu démarré ko nekk ci fi mu nekk nii en plein nekk ci bu baax a baax a baax euh, bokk na ci aussi li ñu leen di jàppale si mooy lu mel ne xeeti saabu ak eau de javel ak ay comprimés yu ñuy wax ak kattan nga xam ne mooy laabal ndox mi waaye aussi ay paan ak raxasukaay yoo xam ni danañ ko jagleel jaboot yooyu nga xam ni yàlla sunu borom dafa def mbënn mi gàññe leen ba nekk ci seen biir kër ndax yu nekk ci biir kër yi. loolu daal bokk na ci li nga xam ni nag day daal di dugg rek ci waajtaayu màggal gu mag gi ndax euh, mën na noo wax ne noo ngi ci pré campagne bi déjà euh, tey jii danoo xëy si woon Touba euh, ñëw ci jëmmi waxtu activité bi waaye tamit boole ci waajaaleel màggal gi noo ngi jóge fii ci site hébergement bi Daaru Xudus fële ca tokkoor ba fi nga xam ne fi la ñuy dalal troupe hygiène yi eh, àllarbay tey jii bu dellu see la liggéey bi tàmbali bon eh, jàpp leen ni eh, lii ñuy def dafa dugg rek ci waajaayu màggal gi nu ciy profité rek di di di di beesal di fàttali di woote ah mu ñeel askan wi ni ñu ko daan defee ni ñu ko daan àndee bu ko sëriñ bi joxee ndigal noonu dugg ci biir dëkk bi setal ko fu mbalit nekk nu dindi ko service d'hygiène pompe ko fu fu ñu war a set setal ñu set setal ko ba nga xam ni gan ñi nga xam ni moom la sëriñ bi seenu ci màggal gi bu ñu ñëwee fekk Touba ci anam yoo xam ni donte nawet lan nekk tawit bi te wax seet la nu nekk xam nañ ni taw bi moom séwatagul ñaanu nu sax mu séwat ndax mooy indi xéwal yi waaye fu mu ko toll rek nu mën kaa toll foo xam ni daañu fexe ba euh, loraange ba ak lam cay ak li muy gaañ wàññi bu baax a baax a baax loolu daal mooy sunu sababu euh, li nu fi indi tey euh, nuy beesalaat sunu sunu sunu cant ak sunu kóolute ñeel ki nga xam ni mooy capitaine Keita nga xam ni moo féete Touba te lépp lu nu fi waroon a def ñu ngi koy def ni mu ko war a defee. Euh, ak am ñi nga xam ne moom la fi nekkal muy les éléments agent yi nekk Touba ñoom ñëpp euh, Touba ëpp na leen doole cib lim waaye mel na ne ñoom seen passif ak seen ak seen engagement mel na ne euh, amul limite amul fu mu yem bon ñi ngi leen di waaw góoral mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ ko ci sànni